doon wax ci ci kii bi la pour revenir sur le sur le sur le sur les élections élections yi aussi il faut que ñun ñun en tant que travailleur parce que ku nekk travailleur la même le président de la république dañ koy fay même bu dee salaire bi demewul noonu mm-hmm. day liggéeyal sénégalais yi donc il faut que ñun ñu xam importance su lan mooy syndicat ak la mooy travailleur xam nga maa ngi tooñ sax nga naa ma damay sànni xeer c'était une façon de dire euh, processus bi yàgg na peut-être le ministère du du du travail communication bi mu ci waroon def defu defu ko ci am nañ budget bu élection am fii muy politique le ministre de l'intérieur dafay fay ay spot publicitaire ak yoo xam ne day wan citoyens yi ñuy def yëpp ñu fay télé yi ñu ñu ñu jéem ko. loolu raar na léegi de. amul laal bëgg a wax dama ni la yaa xam li ngay bëgg. mooy yoon xam nga tey jii. bulletin yi bulletin mm. yi nu yu nu imprimé. Mm. xam nga ñaata bulletin lañu imprimé. pour lan pour ba ñu war a voter. non vote yi ñu doon vote démb. ah de l'argent matériel bi c'est de l'argent la mobilisation de l'administration parce que tous les préfets étaient impliqués. Mm-hmm. dans cette affaire. Mm-hmm. ce sont des moyens donc il faudra qu'on mette en place cette affaire loolu mooy loolu mooy wax ji leneen lii li nga xam ne tey jii moo nu gën a metti et loolu dañ ko xalaatoon avant ñu ñëw mooy la taux d'abstention. Mm-hmm. et on a alerté alerté boo dégloo suñu wax yépp ñun su ñun suñu problème ñun nekkul woon ni. ñaata lañ war a war a jël ñun taux d'abstention bi lan doon wax loolu moo am li ma li gën a metti moo di da ngay ñëw bu njëkk da ngay dëkk ci quartier ñu ne la élection bi ecole ba lañ koy def nga génn sa kër dem ci élection bi mais tey jii ci biir entreprise yi lañ def bureau de vote yi. Mm. ça veut dire dangay da ngay wàcc sa escalier yi dugg si dugg à côté démb dama doon def le tour. dem naa ba biir euh, TFM ma tasanteeg même ñaari nit ak ñett ñoo xam ne fa la ñuy liggéey ma leen laaj fan la seen centre de vote nekk. ñoom ñu may laaj ndaxam élec ban élection la xam nga day poser problème <laughs> ça veut dire que ñooñu voté voté wuñu te duñu voté effectivement man bu ma demee pour contrôle en tant que mandataire j'avais vu qu'il n'avait même pas atteint 5 pour cent maa ngi tooñ mon ami Chérif Dia sànq suba di ko tooñ di ko wax eux même Europe mun naa man voté naa ma ne ko waaw voté nga mais est-ce que entreprise la mu am ci potentiel électoral def kan moo war a voté bu boobaa ci biir entreprise bi képp kuy liggéeykat à ah, la arrêté bi lu mu képp koo xam ni am nga contrat bu diire six mois gis nga même les travailleurs saisonniers arrêté bi bokk na ci c'est-à-dire ñi euh, di dagg ñaambi suukar ñaambi suukar yi bu la wóoree ni yow chaque jour yaa ngi xëy si ba mot six mois arrêté bi may na la nga bokk ci bi dañu képp kuy liggéey mais da ngay am luy firndeel nii moom laa bëgg a wax lay nekkee foofu lay nekkee maintenant dafa am processus parce que li li li jafeel suñu élection yi mooy du inscription du du automatique fu nekk travers par exemple comme mënoon na ñëw ñu ni seen entreprise quel soit alpha yéen ñëpp yéen a ngi ci fichier électoral bi da ngeen di voté mais entreprise moom mooy dem bindu ma wax la ci biir presse bi ci biir presse pendant deux ou trois mois topp nañ organes yëpp même les inspecteurs ont envoyé parfois même des mises en demeure pour gars yi inscrire yéen seen kër gi inscrirewul du ma citer yeneen i presse aussi inscrirewul tey mën naa wax ni bu weesoo groupe Futur Média c'est pas pour leur faire la publicité bu weesoo RTS soleil ak waa sud pratiquement mën naa juum ñoom dong ñoom ñoo fi bindu bi période contentieuse bi ñëwee aussi interpellé waat nañu gars yi mais gars yi bindu wuñu mais xam nga yéen kon am ngeen part de responsabilité ci ci taux d' abstention boobu parce que balaa nga naan naam ne fa boo binduwul mënoo wootu boo wootewul kay affaire bi du mën a <laughs> du mën a am ki mu war li mu war a am beneen beneen beneen responsabilité ñun am nañ ko ci ñun organisation syndicale yi. parce que tey jii pourquoi nit ñi amatul engouement ci syndicat yi c'est une question boo xam ne ñun war nañ ko poser bu njëkk da nga daan gis feetu premier mai plusieurs défilé ngay gis te défilé bu nekk da daan fees del CNTS da daan défilé fële UNSAS défilé fële CNTS FC défilé fële CSA défilé FGTS défilé ñeneen ñu bëri ku nekk défilé ma tey jii dem nañ ba ay certaine période ñemeetuñu organiser défilé c'est-à-dire rassemblement la ñuy def depuis trois ans c'est vrai Covid bi ci la commencé mais Covid bi jeex na mais parce que les gens ont peur que du ñu mën a mobiliser loolu donc il faut que ñu toog xalaat pourquoi nit ñi amatul engouement. ci syndicat yi. oui oui non oui. c'est des questions. bien yi bi ngi fi mais on pose des questions wax lan moo ko indi. Ah, est-ce que vous n'avez pas failli est-ce que aujourd'hui est-ce que fayiru leen.